yegsi nañu suñu rubrique actualité bokk na ci pokk bu njëkk bi ñu war a waxtaanee Moustapha mu ne rapport 2016 de l'OFNAC les cafards restent dans les tiroirs moom mooy waxtaan du samay wax. Moustapha <laughs> xam nga li li tax ñu bëgg ah. moo di ne dafay yàgg. Euh, ñu doon xaar le rapport de nag uh-huh. depuis ñu changé Nafi Nafingam Keïta jox ko beneen euh, magistrat mu jiite ko. Uh-huh. Euh, Seynabou Ndiaye Diakhaté ba ba léegi nit ñi ñu ngi wax naan. nag liggéeyam defu ko ba temps yële ci ginnaaw ñu gis waa nag bu ne président Macky Sall recevoir ne ba mu décoré ci ñoom. Mm-hmm. yàggul dara nag boobule présenté rapport am rapport bi nag Fabel c'est mm-hmm. disponible ci réseau sociaux yeeg mm-hmm. WhatsApp ak Facebook. boo ci xool di nga ko gis. Euh, mais ci rapport bi également ñi ko jàng. ak euh, li ñu daan miin ci rapport dañu wax ne rapport bi littérature rek la maanaam ay généralité waxul li nga xam ne en réalité moom mooy euh, mission OFNAC. parce que bul fàtte ne président Macky bi mu faloo daf ne damay indi CREI. Mhm. muy cour de répression de l'enrichissement illicite. ñu ne ko lu tax mu ne parce que dafa bëgg ñëpp ñi nga xam ne yoroon nañ Sénégal. Mhm. Euh, année yi nga xam ne moom ñëwaguloon pouvoir. Mhm. ñu leeral ku ci nekk alal ja nga yor. nga justifier fan nga ko jëlee. ñu ne loolu baax mu ne dinaa teg nag ñu ne ko pour lan mu ne dama bëgg ñi nga xam ne ñoo nekk ak man di gérer. ku ci nekk étape boo toll ñu mën la surveiller. la ngay gérer ñu wax ba baax na wala baaxul su baaxul ñu teg la ci yoon. d'accord loolu nag amee ñu bari ne am na ay kër fii ci entreprise su ma nee kër mooy entreprise mhm. publique wala parapublique yoo xam ne. Mhm. Euh, joxoñ nañ leen baaraam ne ña ko yore def nañ ay luubal yu garaaw a garaaw. Mhm. am na ñoo xam ne sax dañu jëloon dem porté ji plainte ci OFNAC ne jiw ak diw ni ñu yoree du yoon lañ ko leeral. ñu bari nag lañ doon xaar bi rapport bi génn nag am ñu ci mel ne man ñu jàpp ne lañ doon seet newu ca am na sax exemple ma ci joxe mooy l'affaire Petro-Tim ñu ne ci la à la page 93 su ma juumul dañu wax ne l'affaire suit son cours maanaam. enquête bañ cee def daal ñu ngi koy topp ba léegi mais li ci li ñu ci doon coow ba ba léegi mën a gu ci am lu leer mhm. alors wax nga la sànq tamit ne la rapport boobu mbir la moo xam ne très souvent dafay bari te dafay technique moo tax tey ma sollicité mhm. euh, koo xam ne moom euh, da ci nekk à chaque fois muy jël bigam mhm. di ci bind di ci xool parce que euh, muy Mody Niang inspecteur de l'enseignement à la retraite li tax ñu invité ko mooy moom xam na OFNAC déjà mais rapport yi ñuy génne ci réew mi yëpp ak scandale yi ci am yëpp bu ci nekk da koy jaral mu jël temps bi ci bind lu bari ñu koy publier ci quotidien yi site internet yi mhm. lool nag ñu mu ciy bind di ko waxtaane moom lañ nar a ak li rapport bi indi mhm. pour sénégalais yu bari xam ci xëy na lu luñ ci xamuloon euh, Modou Niang maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm Moustapha maa ngi lay nuyu di nuyu Magal Ndao ci table bi d'accord alors rapport bi ma doon wax sànq euh, lan lañu jàngal ci lu bees déjà jërëjëf Moustapha bu ma nee nag jot naa ko lii leer bu amul solo du ko lire li ñu naan tubaab naa lire en diagonale. traversé ko bu gaaw a gaaw. ngir booy jàng dara da nga koy seenu dara man rapport bi seenu ma ci woon dara aw ma ci benn mbett dara bettuma ci parce que moo doon dara. xam nga ba président Macky Sall ñëwee dafa am loo xam ne moom lu mu digoon ci kaw loolu ñu jox ko sunu kàddu téeméer boo jël juróom benn fa fukk ba juróom war war fa ko mu mooy danaa tëral doxe doxalin wu sell mooy ñu tudd sob wu leer nañu mooy mu transparent mu jub mooy vertueuse pour dalal loolu moom kuréel yi mu taxawal kuréel benn bi moom daf fee fekkoon benn tribunal bu naan euh, CREI cour de répression de l'enrichissement illicite boo xam ni Abdou Diouf moo ko fi tegal 1981 boo ko ñëw ko yëg ay ko fa moom mu ñëw yëg mais ñi ma àndal CREI bii lii boo ko déggee mooy kuréel goo xam ne gi day topp ñi nga xam dañoo jàpp ne am nañ alal ju baree baree baree bari yoo xam ne liwut boo ko màndalee ak li ñuy am mënu la ne ñooñu lañ ko taxoon ñu teg ko waaye xam nga li ci mujj jarul sax lu ci sori jeex na dam te juróom ñaar fukki bi ak juróom yéen a génnoon ñii mhm. ñoom la ñu joxoon baaraam boobu ba tey dégg nañ tuuti dara mu tegal ca OFNAC Office national pour la lutte contre la fraude et la corruption kuréel boo xam ne bii xeex ger ak léegi daaj yëpp ak yàq ak ñu jox la dara nga mbëgal ko yooyu la la la la moo taxoon mu teg ko fa ne na fa euh, na fi ñoom Keita bu ma man moom ma fa yàgg liggéey na ma ak moom ay weer liggéey fa liggéey bu rafet rafet rafet rafet ci biir liggéey boobu li ñu door a euh, ci tekki of nag dafa office bi kuréel bi war loo def rapport de terrain boo xam ne la mu la mu def ci at ci at bépp bu bu tànk bi ko président de la présenté au président de la bu ca pare nag ñoral ko public moo ñu siiw ñëpp jot ñëpp jot du rapport 2014 2015 ba euh, la fi ngom keete njëkk a def war koo présenté président de république dox na waar mënu ko mënu koo jox parce que mënu koo jël président di recevoir nangu ko recevoir directeur de cabinet ne ko amul jot agenda ma tax amul mhm. war a xam la dafa okki ñëwgu mhm. mu dama dama ba mbir mi képp lu yóbbu surtout nag ba mu mën ko ñu teg tey fan président du conseil économique social et environnemental dem jox ko rapport mu recevoir ñu tegaat tey fan programme du haut conseil pour le dialogue social dem jox ko rapport kon amul woon jotoon na fi nga ne am na ñeneen waaw mhm. la ko waxal lu ngeen war a xam na mhm. lu ñëpp war a xam la euh, of nag loi bi tam daf koo jox sincère bi bu ñu saytoo nit ba gis ne loolee ñu fa doon joxoñ baaraam am na maanaam naa téléphoné foofu wala mu bind lettre boo xam nekk daal ña nga fay nangam nangam ña fay nangam bu dee lu yàlla ko mu dem gëstu ko bu gëstoo ba am na yoon jox na ko mu ne bu dossier yóbbu ko directement ci procureur de la République. boobu du jaar ci. président ci président de la République. boobu. waaw bu ñu ko jaaralee ni ko war a jaaralee. waaw mënul bokk ci président wax ne maa ci teg sama loxo. moom ca wàllu. Mhm. boo paree. Mhm. dañ ko yóbbu ba man. Mhm. yóbbu na fa ñaari rapport muy ban ak ci fos. joxoon buut baaraam fos. ak si la benn bi. Euh, centre des œuvres universitaires de Dakar. muy ko Cheikh Oumar Anne moomu mu joxoñ ko baaraam. mën xam tuuti ci lu nekk ci ñaari rapport yooyu lu tax mu yóbbu ko euh, ci ci procureur. Euh, bu poste ak bu bu yàq yu bëree bare yu bëree par exemple bu ma la joxee cour rek. Mhm. keroog ba président de la république demee di fa inauguré benn pavillon. Mhm. li ñu fa wax ne moom lañ fa yi ci xaalis. Mhm. kenn xamul nu mu toll. pour accueil bi. te ba mission ba ñëwee mën nga fexe ba mën a wàllu kii wóor na xaalis bi ñu déclaré def nañu. par exemple def nañu nangami costume téeméeri costume ak nangam pour di ko solo xale yi nga xam ne ñoo waroon a accueillir président de la ak ak ak xale yu jigéen ñi nangam nangam ak yooyu. Mhm. ba ñu pare yow waaw costume anam kenn gisul costume li ma la bëgg wax mooy. Mhm. lépp ñu foxoon a def na ba ba ba ko saytoo. Mhm. gis nañu mënuñu laa benn këyit bu ko wane. muy muy lu eh, ci mhm. mooy seet loola. li ma waxoon ba gis ñu ko ko jéggi dayoo. comme ne ko ñu wax ko ci li ñu waxoon ba mu ci paree. Mhm. mu yónni waat leen dama lay wax ne xam nga Xalifa Sall un milliard huit cent millions lañ ko jàpp. directeur garage bi caisse garage yi ñuy wax fukki fan yi ne dana daana dana jël million ak cent million boo dee quatre cent million allah gis naa ko waxoon ni dafa jéggi daal sax buñ la ko fay jënd na ba jënd xew ñebe ñeenti téeméer quatre mille cinq cent juróom ñett juróom kilo ñebbe. kilo ñebbe quatre mille cinq cent francs. juróom-ñi waaw ak yoo xam ne. ci ñaata kilo. kenn xamul. poobar tamit. ba la mu la mu ci poobar. Ndakaaru mën nañ cee am ci kayit bi. mais yàq-yàq ga dafa jéggi door ak yàq-yàq nga nekk. da mu ngi woon ci rapport bi Nafi mu ngi foofu xam nga rapport bi. da koy da koy tënk. Mhm. day tënk loola waaye dossier bi moom. ca la lépp yi ne. waaw ba muy déposé procureur la. te dossier bi effectivement jox nañ ko procureur. teg nañ ko la ma nañ ko la ma juróom-ñetti dossier. yoo xam ne of nag jox na ko procureur. waaw loolu li ñu war a xam. tey wallaahi euh, Khalifa Sall xaw ma ko jotuma ma moom daal yàlla mi ngi joxoon leen damay daw moom léeg jox ko loxo mu jox ma loxo. lañ mhm. ko ji bu dee ban. Mhm. am na ñu yi fii tax loolu tax mhm. li ma ne dafa ne coom coom daf koo fa teg ko ci dossiers yu bari j'ai mis le coude sur des dossiers wax na ko mhm. xam nga moom di coow mu dellu gannaaw ne déedéet waxuma loolu ci benn dossier rek laa teg sama sama mooy dossier FESMA ma man mënuma yóbbu euh, euh, kayu prison yóbbu rakk ji prison waaw ñoom ñaar ñëpp bu yoon wane ne dañoo nuubal nag loolu leen def tey boo doon ci kër fekk fa borom kër ga ak soxla saak doom ya ñuy defar ay yàmba nga jàppale da nga ni juróom benn di ba la ñu bokk xam nga loolu loolu la war ni pour da nga wax ni yaakaaru woon ci rapport bi dara parce que kenn fa wut xam na la tax ñu jële ko kam kam fa wut te du def lam def bañ jële ko kam ka ko fa ka ko fa wut xam na lu tax ñu jële ko kam fa wut moo tax damay wax ne dans mes contribution mm-hmm. que le président de la République a rendu inoffensifs les organes de contrôle il les a rabougris maanaam amatuñu njëriñ amatuñu njëriñ léegi danaa dem ba yàgg nga ni of naag ña fa nekk wax dëgg yàlla ñu leen di fi xaalis bu baree baree baree bëri luy seen ak cour de répression de l'enrichissement illicite yi mm-hmm. dafa war a mu tëjee Karim Wade ba léegi kenn dégg dafa waroon a am am ak honnêteté mm-hmm. di liggéey parce que amuñu fi benn njëriñ. Mhm. moo tax rapport bi ngeen di wax ay détails ay détails lay génne. dinañ ñëwaat ci ci rapport bi. parce que détails yi nga wax bokk na ci affaire Petro-Tim. xam ne avancé wuñ trop mais mais du détail parce que lu rëy la. Hmm. mais euh, wax nga kudd sànq. li mm. nga xam ne bu buñ ci toppoon. Mm. waa jooju fa nekk. Mm. bi kenn waxatul ay mbir. mais poste également. parce que li tax nga tànn poste mooy les travailleurs de la poste. fan yëpp ñu ngi tëgg seen gémmiñ di yuuxu ne poste ni ñu ko yoree. buñ deful daal ñoom ñëpp ci mbedd bi leen jëm. am ñu wax ci ñoom ne kenn dara kenn tegu leen ko ku dul direction générale. est-ce que effectivement rapport OFNAC boobu Nafi Ngom Keïta élaboré woon ba jox ko procureur looloo ci nekk. mais yu garaaw garaaw surtout ay ay faux usage de mais par exemple commandé na mm, lu mm, par exemple te mm, ñaar fukki machine ñaar fukki ordinateur mhm. wala fanweer wala ñeent fukk ci kayit bi mhm. ordinateur bu ne jënd naa ko nangam lañ koy jënde boo ko méngalee prix bi day jéggi dayoo la wax ne noonaa nga tey bu ñu naan fukk mhm. doo ko fekk ñaar fukk mun nañu du la mën a wax yeneen ñaar du mën a wax kenn kenn mën na ko wax la boo boo jàngee rapport ba te amul rapport ba sax. Mhm. dafa moom yu dee boobu fis yi nga ci kaw. Mhm. maanaam ñun ñu jël ñu fay liggéey euh, tey poste boo demee càll bi mhm. wala foo mën a dem ci poste da ngay gis bu fa kenn masaan mën a nekk lu man ñaara nga fa wala ñett wala ñeent yu dul def daal recrutement yi caaxaan fii ci Poundou fii ci benn yoon la ko la ko nit ñi xam Cheikh Oumar Anne recruté ñeenti téeméeri gone yu dëkk Podor. Ah, ci benn yoon. par wal fajir um, wal fajir gi. Mhm. moo ko génne. ba ñeent fukki gone yoo xam ne téeméer yi ak juróom fukk ak juróom ñoo nga dëkk. Euh, ak fukk ak juróom. rapport wala. bis boo leen la foofa te boo leen day ànd ak ses collaborateurs ñu ngi kii ak otoy kuréel yëpp da leen di de mission te les politiques ku jotewul foofu dara ak yoo xam ne yi kenn mënu la ko wax yu jéggi dayoo loolu lépp ñu teg ci seen loxo ak yeneen 2014 2015 2016 2016 rapport IGE mm-hmm. su la révision des comptes 2016 la war na génn te noo ngi presque ci 2000 kenn kenn waxul fu mu ne de sorte que moom moo ko wax ne il ne peut plus concevoir qu'on publie des rapports qui mettent en cause ses proches moom mënatu la nangu ñuy fësal ay rapports yoo xam ne dañ cee duut baaraam ay ñooñam xam nga li ma li ma jaaxal moo di yaa moo di ne rapport dëgg la. mais euh, barki démb am na kenn suñu ay collègue koy wax ne OFNAC bu jàpp kenn. day joxi procureur bi nga xam ne moo war a moo war a jàpp mu jàpp. alors euh, wax nga tamit sa biir wax sànq ne OFNAC amul obligation rapport am yooyu yi nga xam ne ay dossiers yoo xam ne daf ci jàpp ne lii lu garaaw la. mu koy jox président am na possibilité jox ko directement le parquet. mu def liggéeyam. léegi su fekkee ne procureur boobu la jot na dossier yi deful liggéeyam yaakaaru ba ne mën nañ ko jiiñ le président de procureur ah, kay lañ koy ah, waaw xam nga yoon. Euh, parce que procureur biñ ne bi biir biñ ko joxee rapport IGE. waaw tegu ci ñaari fan ñett. Ah. yóbbu na Khalifa Sall prison. waaw d' loolu looloo lay wan ni looloo lay wan ni euh, mbir mi du ci procureur de la République parce que procureur de la République dañ la ne. Mhm. dañ lay jot ndigal. dafa kilifa. Mhm. kilifaam mooy ministre de la kooku kilifaam mooy président de la République. dëgg la. Euh, loolu mooy sénégal yi nañ ko nañ nañ ko gis nga bi ñu yónnee inspecteur général bi mu dem. mairie def na fa def na fa attaque nangam. ba mu génnee rapport ba teguñu ca weer wala ñaari weer président de bi jox rapport premier mu jox ko procureur de la procureur de la ca saasa. Mhm. mu kii ko defu conférence de presse. Mhm. wax la ca nekk jox ko juge d'instruction kooku itam li te bu fekk na mais du ñaari dossiers yi ma la wax nga nga fa ak yeneen dossier yu dul jeex lu xaj ak waaw mooy lu ma fukk wala ñaar fukki du daanaka sentif mhm. sentif bi nga xam mais déposé nañ fa dossiers yi kenn xamul kan la kenn waxatul seen wax lan nekk ci table procureur bi comme dossier kenn xamul ñu toll am na rapport yoo xam ne yi mhm. yu ci bëree bëri of nag IGE def na demande l'ouverture d'une information judiciaire mhm. pour détournement de neuf milliards ci rapport yooyu donc maanaam Samuel Sarr Ofnac euh, Fesman mhm. euh, Sarr aussi même chose est le le le le juge demande expressément l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministère de l'économie et des finances waxuma le ministre le ministère le ministère parce que dafa am 15 milliards yoo xam ne ci biir Fasman bi nañu daan di leb ko ca banque ba indi ko au moins que ñu jox ko un comptable public ñu dem jox ko une personne privée mu ngi fii ci Touba. kii moo war a ba évolué mënuñ caa leeral dara UG boobu nañ ko boo war ba tey kenn waxatu lu ci yëf moo li ñaar yi saar ya kenn waxu lu ci dem te mu nga cee kii procureur mm-hmm. dossier xalaat na sàngaat rek pour un million huit cent millions ñu daan koy lijjanti jàpp ko ne rawu ci fas yi. teg ko juróomi at. loolu lay wan nii teg ko juróomi at ak amende <laughs> cinq milliards. alors que wala ñu def ndam ba yu ko ëpp dama ne la bu defee benn maanaam am na ñu def fukk ñaar fukk fanweer. niveau le président de Pékin tudd leen. en parlant de de de Ndiome sax moo ñu indi ci beneen ñu enchaîner directement. Mm-hmm. moo di de euh, bari ay rapports yu ñuy wax. Mm. ay scandales yu ñuy Euh, très souvent damay wax ne les hommes politiques aiment s'accuser maanaam kii accusé ne kii sàcc la kii ne que mais am ci koo xam ne quand même accusation euh, je me dis quelque part que mënuñu ko bàyyi noonu rek mu dem mm-hmm. mooy bu Ousmane Sonko mm-hmm. mu taxaw mm-hmm. wax ne directeur général des domaines Mamadou Mamour Diallo scandale bi mu bi ko bi ko impliqué estimé nañ ko ci quatre vingt quatorze milliards. Mhm. yemu ca. Mhm. mu ne moom ci boppam. Mhm. saisir na euh, le parquet. saisir na l'IGE. saisir na l'OFNAC. mais boobu ba léegi. France OFNAC rek moo ci jéego. alors est-ce que dañuy jàpp rek ne homme Ousmane Sonko homme politique la comme yëpp ay waxam jëlul du ma sa doom. wala boog dañ naan 94 milliards quand même ci réew mu doole ne Sénégal mënuñu ko bàyyi mu dem noonu foofu mu leer. man de jàpp ma ne Ousmane Sonko. am na woyof bu taw bi wax loolu mu wax li ma ci xamal mooy euh, li ñu tuddee les terres du général souvent suuf ay ay ay suuf yu bëree mhm. yoo xam benn général bu tubaab moo ko moomoon nekk ci boor yi Sangalkam yooyu Wàdd xëy na mhm. da koy jënd pour en sécurité les populations maanaam ñu fa dëkk parce que dëkk mais titre foncier jàmbur la donc da koy jënd pour ñu bañ bundu xataal li nga xam ne waaye boo gisee nañu ko defee suuf sax lañ ko defee ak nañ ko daggatee ña ko jox mais non seulement joxuñu leen ci yoon ñoo xam ne nii dañu leen jox hectare hec ba am na koo xam ne ko cee jox hectare yi duñ jeex mu doon jaay ko caisse de dépôt et de consignation te booba. bii ba waaw booba joxatu ko sax c'était en cours kenn joxatu ko mu doon jaay leen ko. ak ñaanal ñaan ba ñu seetee bu fekkoon ne jaar nañ ko yoon loola li ñu war a fay seen li ñu droit fiscal li ñu a fay rek ëpp na 40 milliards te loolu boobu Diallo mii moo nekk inspecteur des impôts au niveau du risque Omar Diallo mii duut ko ca baaraam bu baax a baax rapport boobu man fu ne fu ne am na waa rapport yaa euh, xam ne ci impôt dugg ci keesu état mu ci dara au contraire ay Masamba ay ma Demba ñoom la ñu jox ay kii ñu dem jaayat ko am ci milliards yu jeex loolu moom leer la te wóor na man Ousmane Sonko loolu mu ci rapport yi la ko jëlee parce que d'abord man rapport yi ma wax bu leer la lu suuf soosu war di jënd suuna ba sécuriser les populations góor googu lu ñu ci réew mi tubarkal la moo tax bu ma gisee nit ñi naan góor këriñ góor dëkk sonal dama naan mais mhm. sénégalais xanaa waaye nag Wade juumutoon la woon Sénégalais boo ko laajee moom mooy biir du la ko wax. na ko wax te mu mën a xaalis ci moom la jàpp ba mu jógee mm-hmm. te moom ko suuf soosu moo ko jënd mën ko def mu jëlee yeneen suuf yi ma ci kii ay CICES ay. aéroport aéroport nangam nang nga jël lu toll mm-hmm. suuf soo xam c'est des. c'est des milliers d'hectares yoo xam ne ñëpp ko bokk bien collectif lu ñëpp bokk la yow ca nga man ca laa ku ne ca nga gis gone yoo xam ne ñu ngi daw ci am kër guñ dëkk nga jël ko ñoo xam ne ñi ku ca ne am nga ñaar bu ñu wala ñett wala ñeenti kër di borom xaalis ay généraux officiers généraux man li may mu leer la ay officiers supérieurs officiers généraux mm-hmm. inspecteur des inspecteur du ministre di nangam ministre ak i ñu ñaar ñi ngeen xam. Mhm. ñu mbak yu fay ak Cheikh Amar gis ngeen li leen jox. 4300 francs le mètre carré nga dem di ko jaayee 200000 francs le mètre carré et puis suuf ko leen jox ñu dem di ko jaayee. Mhm. ñu dem di ko jaayee IPRES par exemple. Mhm. mais nañ ko jaayee IPRES directement te bañ ko jaarale ci ñeneen. c'est-à-dire état moo leen joxuñu jaay état. état parce que IPRES c'est boo ko seetee. dama naan Sénégal daal wax dëgg yàlla loolu daal. est-ce que ñun est-ce ñun suuf. Ah. fii suñu réew mi. suuf. Hmm. suñ suñ gisee Fabel. waaw lii nga xam ne yëpp moo am en Afrique. très souvent dañ naan la. li ci ëpp daal si suuf la jóge hmm. nii ñuy def suuf suñu réew mi exemple ma ci jël rek moo di ne aéroport Ndakaaru bi euh, bi président Macky Sall yéegee dañ ne dañuy sécuriser le périmètre aéroportuaire parce que kër yi dañ ko commencé jege euh, waaw ñuy miiru aéroport bi daanaka yokkaat nañ ci diggante miir bu njëkk ba ak miiru bees bi war na ëpp 5 kilomètres loo xam dañ koy yokkaat en tout cas bu dul 5 5 2 kilomètres quelque chose dañ koy yokkaat miirewaat ko entre temps aéroport bi tuxu miir bi ba léegi ma nga fa donc boo ko traversé Cheikh Tidiane nga jaar côté ouest Foire ak yooyu mënoo gis li ne ci biir aéro miir bi mais boo taxawee ñun ñu dëkk foofu soo taxawee ci kaw terrasse wala ci kaw étage xool biir aéroport bi gis nga ne suuf si dagg nañ ko ba def ko ay kër ba jox cela veut dire jox nañ ko suuf soofu ñu doon euh, sécuriser périmètre aéroportuaire bi jox nañ ko ay nit yu foru dëkk te ay kër lañ fa tojoon mm. te ñoo ko jox Cheikh Tidiane mënoo cee bokk Moussa Fall mënoo cee bokk mm-hmm. parce que xam nga loolu li gën a garaaw mënul dem ba jur euh, ay fippoo gi demee noonu man dama defal Sénégalais dañoo loo a nooy lool lool lool lool <laughs> parce que quand même mm-hmm. ni def suñu suuf si loolu nit ñi waroon nañ ci xaw a yëngu mu xaw leen naqari mm-hmm. mais li nga wax ci mag Mhm. dafa am loo tëb ba mu nekkee candidat à l' élection présidentielle Sénégal yi kenn am na loo ci a mhm. Dakar ba ah ci nu mu tudd. Fapal yi kenn bi. Ah, euh, ma defar li ma defar. bi chronique bi. Mhm. ba Macky Sall di laaj réew mi. xam nga campagne bi bu commencé ku ci nekk dañ lay waxtaan d'antenne. waaw ba lay cinq minutes dix minutes yoo xam ne da waxtaan ak xel. am na benn temps d'antenne boo xam ne foofee ca mamel mamel la ko def foofee la ko def mm-hmm. booba ña koy commencé ñu euh, télévision bi wane mu ne xoolee lii mm-hmm. xam ngeen lii rafetul jël suuf soo xam ne si ñun ñëpp ëku Sénégal yi waa naa keneen ko dégg mm-hmm. loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk moo ci bokk yem moom Abdoulaye ko jël dagg ko nii di ko jox nit ñoo xam ne ñi ñun ñi ci gannaaw man bu ma ñëwee bu ma ma fale dana dama koy dakkal mu ñëw gis nga li mu wax. Mm-hmm. li mu joxe ci suuf kenn xamul nu mu toll. daggal na ko ñaari weer seet xool xam ni fii ay ñëwin rek a fa ne <laughs> tey am na foo kànt kii boo xam ne boo demee. Mm-hmm. dañ naan la euh, bi c' est le voleur de Macky Sall côté bële c' est le voleur d' <laughs> Ablaye Wade. ci mm-hmm. suuf yi fi dëkk. peut être du ñuy sàcc. mais da fekk koo xam ne kii. man am benn exemple bu ma la war a jox. Mhm. bi ma tudd tur koo xam ne kii magistrat mhm. di xale bu ndaw je crois que 1978 la war a judd. Mhm. am na dëkk. am gu beneen kër bu ñu tabax am beneen terrain pour àggali kër gu terrain boobu da koo jaay 25 millions ki mu ko jaay man xam naa ko xam nga boo jaayee terrain da dem ngeen. waaw kii moom moo fay moom moo fay. mais c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays là. te Macky Sall ne moom bu ñëwee li muy li muy def fa Abdoulaye Wade jaar fa jaar loolu la ko nit ñi moo bu ci nit ñi xaaral dara. pour galerie la rek. parce que pour la galerie. d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles maa fi créé L'OFNAC ba ma xamee lii de du kër mu ngi doon bund xataale ndaw si ba mu xamee ne mu ngi ay gaayam man la décidé ni man lii mënatuma ko dul fekk na surtout que may bind sama contribution yi mu la xari leen bay bëgg a dee man ni mënuma faa toog di lii jafe-jafe kii te mënuma noonu damay jël mais Sénégal nag quand même dëgg-dëgg je n'appelle pas à l'insurrection mais nag dese nañu am fulla fayda ci suñu bopp dese nañu est-ce que du dañoo ñàkk am conscience que ni lii ñuy pasar pasaree lii ñuy joxante parfois sax ñu jël ci may ci Cheikh Tidiane wala may ci Moustapha wala Fabel mm-hmm. suñu alal la joo xam ne ñun ñii di ko seetaan suñu ay doom ki sët ki yeneen ki sët ki sët ki sët ñoom ñëpp dana dal seen kaw. mais commencé na dal seen kaw. Dakar léegi amatoo photoxu école amatoo photoxu dispensaire amatoo photoxu bureau amatoo pour place yu ñu gën te fu sëpp jox lañ ko jox jox jox bu ci loolu koy commencé. doon bu ñu xam ne dañoo toll ci fanweeri at fanweeri mhm. am liggéey am na mhm. jeex ak da nga gis benn chef religieux boo xam ni mhm. benn ministre benn général benn colonel benn magistrat boo xam ne dañ ko day ñett wala ñeenti kër kooku mu dëgg doon te lu ñëpp xam na boo ko tuddee nag ñu ni man je n'ai rien contre les magistrats je n'ai rien def ak Wade se pas sérieux ak Macky Sall mi. voilà c'est man euh, Moustapha. Hmm. man su ma bëggee ma xaw a jaaxal tuuti mooy euh, bu may xoolaat parce que man damay euh, booy xool actualité internationale. Hmm. nga xool rôle bi nga xam ne chambre yi mooy maanaam ay Sénat. ay euh, kii. Euh, parlement euh, parlement voilà. Mhm. commission maanaam ñu ngi yëngatu ci ci ci mbir mhm. dossier comme par exemple mooy kooku bokkoon sécurité wu Macron demoon ba doo kooku commission Sénat bi. ñoo jël ak dossier bi. Mhm. ñoo daal man ba mu taw bi rek. Cheikh bala may bàyyi euh, Modou Niang wax ci xanaa déggoo liiru euh, journal bii di suma juumul laaf ci suba. wala démb ci suba. Mm-hmm. xam lan lañ wax. Mm-hmm. dañ ne député yi dañu Macky Sall du recevoir. Mm-hmm. les députés de la majorité. xam nga lan lañ ko doon dox ñoom. ñu yokkal leen seen carburant. 300 litres la defe naa par mois léegi dañu bëgg mu dem ba 1000 litres. waaw yow. boo ci ñoom ñu leeral da da ngay tax sa bopp. ji nga ji nga ñooñu moom. muy conseil économique social. muy au conseil pour les collectivités territoriales. muy assemblée nationale. boo seetee seen budget rek. milliards yi muy jar. ji Sénégal. waa Macky Sall dañoo ne. def na nangam def na nangam def na nangam def na nangam forage def na nangam forage def fu ñu ne la Macky def na la fu ñu ne la Macky def na fa ñaari forage mhm. président de la nga xam ne solo alal ji da koy aar mhm. fu mu defee ñaar man na fa def juróom parce que bu boobaa mhm. c'est donc fi wax waaw bu demee tabax fi ab kii sax bëgg nit ñi wala léegi lu mu bëgg maa ci def boo ko def sama dépense doo ko du la toogal leen. dëgg la te ji nga wax li la bu ma la defee ci ñaari voyage. Mhm. président bi du jub et cetera. fu ne ne 4 milliards bu demee ñetti at ñeenti at mën nañu ko def ñett te bu ñu ko jaaralee fa ñu ko war a jaarale li Macky Sall def fii. Mhm. président boobu bu ñu bu fi woon mën na def ñett tam benn mandat parce que boo jëlee conseil économique et social. six sept milliards yi nga leen di jox. le haut conseil de de nangam nangam. ñoom milliards yi nga leen di jox assemblée def seize milliards. cent soixante cinq députés yoo xam ne amuñu fa benn njëriñ lu dul ne Macky Sall wax ñu def ko. lu mu waxul bokkuñu parce que ñun. nous avons des politiciens professionnels ci politique li ñu dundee. nga nekk foofa ci conseil technique et social nekk au conseil nekk fii ñoom buñ ci dund rek réew mi yitteem leen seen bopp rek leen yitteel. loo xam na bu ñu def ba c'est extraordinaire ce pays là mais nit ni ma la ko waxee. dañu koy doon neral jàpp naa ni mhm. waxuma ko pour campagne waat naa ci yàlla ne. bu fekkonte ni bi président de la république bu jub am nañ ko. bu jub parce que je considère que kii jub. <laughs> dafa la nii. boobaa ñuy ñëw jëwul sàmmoon kàddo. jubul sàmmoon kàddo. te dafa jàng ba lépp. xam bu boor ñett yooyu yëpp. juboo sàmmoon sa kàddo di jàng. mais kooku c' est grave volonté. moo tax. loolu la def naa ko fii. président boobu bu jub bu ñëwoon xam ne alali mi da koy aar bu ko defee benn mën ngaa def ñaari ci fukki fan ak juróom parce que xaalis booba lay gën a bari booba lañ koy gën a aar waaye giñ naa ci yàlla bu ñu ko falaatee ak suñu pétrole ak suñu gaz bii mu ayam pourtant ñu bari nee nañ mën na nekk ndaxte Afrique am na ay président yu mel ne Paul Kagame africain la jàng ci Afrique gii mais ñu bari man dewuma Rwanda mais ñu fa dem ñëpp dañ naan la ni mu yore réewam africain bu ko yore sa réew mu dem pour vous dire que c'est possible. mais c' est bon na warante xam nga Sénégal yi dëgg dëgg dëgg góor bi duñ la xaw maanaam daal. on l' appelle à extraordinaire boo Sénégal yi boo xam moom. dëgg dëgg mais bu ma kii leen bu ma ko il faut nga wax leen. li ñu bëgg a mais c'est man def naa sama benn kii bu ma yónni ci presse bi pour suba xaw ma dina génn xaw ma ci loolu la gën a insister pour dire de maintenir le cap. moo ma ko wax mooy ñoo xam ils sont partisans du statu quo li fi nekkoon. ñu bàyyi 1950 bi ba léegi ñu bàyyi ko fi. xam ne ñoo xam ne jigéen ñi boobu dem. ku dem sa morom remplacé bu dikk di di lekk rek ñoom lool loolu daf fi war a jóge. Modou Ndiaye foofu ñu jeexal ci ci lenn moo di ne Petro-Tim waaw mbir la moo xam ne euh, ñu bari nañ bokk nañ ci scandalu régime Macky Sall. Mhm. tudd nañ ko fu ne. ñu ci doon xaar le rapport de nag su ma juumul ci page quatre-vingt-treize wala autour de ça ñu ne l'enquête wala boog l'affaire fi mbir foofu nag pareegu ci ma ngay continuer di ca di ca gëstu na lañ mën a jàngate foofu ça veut dire peut-être que ni volonté wu leeral man la ma saa wax non yow mi xamoon mu demee yow la moom seen bu ma la ko mhm. ba mu daataan dem Karim Wade moo ministre dañoo signé contrat Petrotim ji nga contrat bañ koy signé mhm. ko Petrotim jël nañ dañ caa tegi fan ñu soo ko jëmmal sàkk. maanaam daanaka contrat doogul doogul waaw bon contrat boobu li koy li koy dëggal. Mhm. mooy décret. defoon nañ projet de décret ba. donc wàdd ci yoon wi. ñu ngi woon ci yoon wi mais contrat amagul woon. waaw contrat amagul projet décret ba. Mhm. Macky ci taabal ma la ko fekk. Macky Sall fekk ko ci taabal mu laaj inspecteur généraux d'État yi. Mhm. en l'occurrence le vérificateur général Nafi Ngom Keïta dafa leen mu fi enquête. waaw ñu def enquête en conclusion. Mhm. bii bii décret bu ko signé. mu leer. mu leer a leer jaarul ci yoon. Mhm. parce que décret. Mhm. day sukkandiku ci li ñu tuddee exposé des motifs. waaw mooy wax li war a signé décret bi. boobu. Euh, kii nekk ministre de l'Intérieur yooyu nekk. waaw Aly Ngouille Ndiaye waaw parce que Abdou Mbaye dina tudd lu bari lu mel noonu ndax moom Aly Ngouille Ndiaye moo ko introduire en erreur parce que c'est du faux ah. présenter le président Macky Sall yow nga ne effectivement noonu la parce que IGE waxoon warante parce que doo war a jox maanaam pétrolier da ngaa a nangam da ngaa war a nangam da ngaa a nangam da ngaa war a dafa am ay kii yu bëree bëri yoo war a boole mhm. loolu lépp pétrole amul ci dara en le mouvement mu exposé du mu def ca nag. boobu waaw loolu lépp am na. donc gis nga. bis mhm. looloo tax mu ne il va tout faire pour que Macky soit réélu. il va tout faire pour que ses militaires reçoivent leur carte de vote. Mhm. le ministre de l'Intérieur qui dit saa nee na def lu ne pour ñu xalaat Macky dana def lu ne pour ñu militaire jot seen carte dana def lu ne pour ñu wote ministre de l'Intérieur moo wetu daal kooku moom mën naa fexe bi militaire jot. Mhm. waa ñii di déglu seen carte. parce que leer na ko ne moom bu Macky Sall daanoo avec ce décret là kenn xamul fu mu moo tax soo dem jaay jaxate xalaat xalaatu woon na daal lu man xalaat ma sax mu laal ko loolu loolu demee. kon bu doon lànkee suivi son cours pour rafetal. rafetal décret bii. Mhm. du ñoom ñoo koy traité. Macky Sall jógee fi rek keneen ñëw traité ko. génne njuuj njaay yi nekk ci biir parce que njuuj njaay dëkk la. parce que dañ ñu ko joxee kooku. lii Ousmane Sonko di wax ñu naan day kii mais au dafa dafa dal di gaaw jaayaat ko. Petro-Tim dañ ko dafa jaay ni mu nekk ay milliards mu mais bien sûr te te bu ma déggee bu baax ni nga ko waxee moo di ne tey jii mënoon euh, Petro-Tim la wax mais mënoon na tudd Cheikh Tidiane Gomis ah. parce que boo ko dara amul. Ah. Ah. ñu présenté ko Abdoulaye Wade mu def projet de décret yàlla décret yàlla def. boobu muy signé nguuram jeex. Mm-hmm. mu bàyyi ko fi. Mm-hmm. donc su yemee foofu ci Wade rek. Mm-hmm. coopérative du am. Mm-hmm. suñ fa yemoon. Mm-hmm. Macky Sall jël def li mu war a def mooy demande ñu éclairer ko ci mbir moom. ñu éclairer ko wax ko ne ko bii boo ko signé scandale la parce que lii amul dara lu ko mën a justifier malgré tout. mu signé donc mënoon na tudd Cheikh Diar Gomis heure bi fekk ñun ñu nekk ay milliardaire extraordinaire la gën a tax gën a tax xam Macky Sall gaawantu jële fa Nafi Ngom Keïta mhm. vérificateur bi pour de noyee ko OFNAC loolu ci la parce que rapport bu mu ko def ak la mu la mu moom. Macky ji ñeme wu ko da koo daal parce que boobu la nekk. waaw moom moom la jiite woon. dafa daal di ragal kii ak ak lim la lim lim dogoon ci xelam ne moom lay def. ak au vérificateur comme moom it mënuñu mënuñu mënuñu mënuñu président mu ñoo nag ba mu ko mënee yàlla xam na ne ndaw si bëggul woon waaye président bu la noonu nga dem. mais bi mu demee nag lu ñu war a xam la aussi bi mu gisee mu ñu laal gaay bi. mais loolu proposé na ko pour mu def. pour mu jógee pour mu jógee foofu nag na ko ñu ñaxal proposé na ko ministre proposé na ko na ko lu ne proposé na ko. ndaw si mu ne ko dëgg mu ne waaw ma jóg ci yow mu jógee ci moom c'est c'est. réew mi waaw voilà le pays voilà le pays comme ni mu ko waxee réew maa ngoog Fabel uh-huh. lii moo taxoon tey uh, ma ne woon nañu wut ko ñu éclairer ci uh-huh. rapport yooyu parce que xam nga li mu ci xam ni yëpp uh-huh. ñun pour ñu wax ko ci day day jafe parce que moom moo ko rapport 2016 2016 waaw IGE e. ah li ma xam lu ko génne te boobu loi moo wax dañ ko war a waaw waaw 2016 bu nekk te 2017 2017 léegi 2019 ñëw non daa far bi yóbbu Khalifa Sall kaso Khalifa Sall wax na nañ ko déclassifié mais kenn. ko déclassifié parce que boo ko déclassifié. la la la defoon na ko ci taw. déclassifié rapport wu Thiadiély Thiès si Sénégal yëpp jot ñu. moo doon moo. Macky Sall moo la représentation diplomatique jël ko kii tey jii lépp mi ngi ci teg loxo voilà voilà le pays dëgg dëgg dëgg Sénégal war nañ ko seetaan. moom mel léegi buur bu jàngul baaxul waaw dama ko waxaat buur bu jàng par par parloo baaxul ba pare doo sàmm sa kàddu kooku mu jiiti te loolu war war na ko war naa passé foofu cinquante huit ans d'indépendance war na réew mi war na xaw a soppi tuuti. mag. réew war naa nekk mag. <laughs> ba ngay jaajëfal bu baax moom mhm. lii moo taxoon ñu ne woon nañ ko ànd ak moom tey ci waxtaan wi xam àndoon nañ fi ak Pape Alé mhm. ànd fi ak Umar Faye mhm. heure bu ko soxlaa rek dinañ fexe di ànd ñu mel nii parce que dañuy bëgg ñuy seetaan. li ñuy waxtaanee ñu man cee teg baaraam. Mhm. ne ne lii la et di ko defee ci kàllaama goo xam ne aussi day accessible. ci le grand nombre de sénégalais. Mhm. boo xam ne aussi heure bi muy jàll. Mhm. koy seetaan yaakaar ne ku ci nekk ak fa nga yaa xam ni nga koy déggee la ci doy ak la ci doy ñu koy jaajëfal bu baax. Euh, di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan àjjuma ci waxtu wi. di la jaajëfal yow tamit di joxante dig daje àjjuma ak jàmm. incha allah bu baax a inspecteur Moutignan wax ji leer na macha allah boo gisee ñu ñëpp nee nañ tekk di déglu ndax boo gisee koo xamante ne moo la gën a xam moom moo moom moo nekk ci ci ci ci bi comme ni ñu koy waxee euh, day am solo ma ne di ko déglu te defe naa ne indi nga leeral yu am solo ci boppu euh, Sénégalais yi euh, mu nekk lu am solo ma déglu rek ci chronique gu Pape Alé Niang tey mhm. mu tëjee wax bu am solo nee na nee na ñeewu leen parce que bu ñu fàttali aussi dañuy daj dinañu dee liggéeyee te dinañu rendre compte. waaw dinañu rendre compte parce que yàlla ku mu jiite ku mu mu jox nga jiite rek. dalaa sàmmloo et li mu ñu li mu leen jox ñëpp man de ñeewuma leen. te bugguma kenn ci yoon nekk sama papa wala nga nekk sama yaay. macha allah wax doon wax buur yàlla ko. moo di ne. yërëm leen jaamu yàlla yi ndax yàlla bi leen def. ngeen ngeen ay doon ay njiit. te bokk na ci li ñuy ràññee gor sa waxu euh, ren. Hmm. méngoog sa sa sa sa sa sa kàddu. waaw. booy seet dëgg dëgg nit. Uh-huh. koo xam mën nga koo wóolu jàppanteeg moom. Uh-huh. da ngay méngale. Uh-huh. waxu daawam. ak jëfiratam ak jëfiratam bu ñu méngaloo rek nit a ngoog bu ñu méngaloo bàyyi mu dem nit ku baax jëfam da koy tënk mais it ku baax waxam la koy tënk waaye boo waxee loo wax bu liggéey manager nekk lu am solo aussi parce que des fois nga wax ak nit sax eh? euh, dugg ci ci ci cadre bi ak Pape Alé Niang dugg tey waxu ci waxu yàlla mm. euh, dañ koy jàppee benn affaire boo xamante ni te lu fi nekk la euh, lu fi nekk la chaque jour ñu gis ah, mm. xam naa ne waxtaan am na solo oh, te mu ngi jeex waaye professeur Mody Niang wala suñu mag bi suñu kilifa bu baax gi mm-hmm. dafa war di wax bu baax ñu mel na moom war nañ bari parce que sa wax ji mhm. day tax ñu xamul woon xam dafa leer dafay leer yu bëree mhm. bëri ñu xamu ñu yi duñ ko xam boo leen mhm. waxee ñu xam ko dafa am genn kilifa ci lislaam Omar ibn Abdul Aziz bu masaana toog ak euh, nit ñi di waxtaan ak ñoom dana xam ne alalam li mu moom ak li nga xamante ne ci alalu askan bi bu waxtaanee ak yow ngay nga ñëw di waxtaan ak moom loo xam ne dafa concerné wàllu réew mi bu taaloon lampe bi nga xamante ne si ci contribuable euh, réew mi lañ koy faye mm-hmm. bu seen waxtaan wi jeexee da koy fay taal sondeel bi nga xam si moo ko. waaw ngeen wax seen wax waaw ngeen wax ci seen wax lu am la. loolu na suñu. macha réew yëpp roy. <laughs> bu defee développement dina mën a am incha allah. am na solo jërëjëf mu nekkoon suñu actualité tey.